ginnaaw ñaari weer yi ñu ko fa def ba tax ñu bëri daal porte parole bu gouvernement bi nag di Abdou Karim Fofana wax na ci démb li mu ci wax du lenn lu dul ne daal ndogal bi ni mel la ko wuutu mooy coppite gi am ci doxalinu Ousmane ko jëm rek ci communication amatul dara lu wërandi wooteetul fippu amul dara lu leen koy tere dindi moom la biral démb ci seen janok ak taskatu xibaar yi waaye yéene kaay bile nag nag di laas beneen xibaar la ci joxe tey jile li ñuy xamle bu ñu sukkandikoo ci moom lu ko waral loxoy roi bu Maroc di Mohammed VI nee nañu jógu si ndax nag dox na si ay tànk jàmm ci rabaa gi mu nekk te it nag lu raw loolu sax moom mi le di roi Mohammed VI séentu na ko ndax nag am na benn ndaje ci diggante ñoom ñaar di njiitu réew Macky ak Ousmane Sonko ak moom di roi Mohammed VI bu ñuy waajal ci fan yi di ñëw jëm rek ci Sonko mun a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw di am ci février 2024 maanaam daal jongante yi nga xamante ni moom la ñuy waajal te mu nar a am ci weeru février 2024 leneen lu journal bi le nag di laas wax li nga xam ne moom la ci wax itamit rek mooy ne daal roi Mohammed VI loole mën naa tax sax mu def ab benn déplacement filé ci Sénégal Sénégal fekkee ni rek nguur gi fi mu jàpp rek la jàpp ba léegi